bismillah waaye géej gi doo leen ci wax Tribune yéene kaa ne ñeent ci ay nappkat day waaw daal dina ñuy réeraat nag ci biir le mardi tali maa ko musiba amatina de kenn daal lañ for ca diwaanu Mbuur gële waaye gis nga Mamadou Ndiaye Boubacar Diouf Daouda Seck Baye Mbaye Ndiaye waaw danoo réer de réew mi ko tijéene accident yi nga xam ne nag maanaam ñoom ñooy am ci biir géej gi day waaw ci ñetti weer lu tolloog ñeent fukk ak ñetti ci ay doomu aadama dee ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te gis nga ca jamono nga xam ne maanaam ñoom ñoo séq nag élection locale yooyee waaw ña ngay rayante di maar di taali waaw parce waxtaan di dialogue bi nga xam ne moo amoon ca sous commission dialogue boobee waxtaan nu ñuy tax la de ci nopp bii génn ca nopp ba ca des parce que Cheikh mi nga xam ne nag mi ngi bokk ci Benno Bokk Yaakaar waaw nee ngir ñu organiser nag élection liggéey bi daal lu toloo fukki ak benn kon la war a duré eh way Samba mu Ndiaye Cissé waaw nee ak élection locale yi ba 2022 day mbir moo xam ne nit mënu koo nangu te loolee mënta ne dé fay ah nee ak élection yooyu d'accord tey te duñ d'accord ëllëg la wax très bien ça les seco yéene kaa ne élection locale yi de waaw waxtaan ba juboo amul désaccord total kay moom am ci ñi xam ne ñoom ñoo ko seq ca wàllum dat ba parce que nguur ci boppam day 2022 la bëgg a jëmale parce que conseil des ministres de moom Macky Sall ci boppam daal dinay ne élection locale yooyee dàqati nañ ko ajati nañ ko de la ilaha illallah last organisation élection yooyee Macky Sall ak ñoo ma àndal tey waaw ba ñu toog xaarle le quotidien yéene kaay ne ajati nañ ko de évidence yéene kaay ne waaye opposition bi de nee na ñu lu njiig gi ci boppam mooy njaak ca jamono jooje Sud Quotidien nee na coowal Ousmane Sonko ko ngir ñu nii la topp bi nga topp nag njiital Pastef mi lé l'observateur coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko day jur na musiba manifestation ay musiba yu rëy parce lu ëpp ñaari junni ci ñoo xam ne ko nanu doon liggéey ca total gëlé sëyin xëy aj nañu ko de gaa ñaa nga toog seen kër de mardi taali liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekkoon ca OSA dàq nañ leen la ilaha illallah sur saane la nooy a nooy na nooy bi day moo de fast track lañ ko indi dee taf taf parce que Guy Marius Sagna Assane Diouf Clédor Sène xam non te ba ma ko seetee it da ngeen li wax day wuy ji du wuy te tam am naa ci moom confiance moom Ousmane Sonko waaye dara pour éliminer Ousmane Sonko la rek bugaan ngay dani mooy wax du samay kàddu de njiital gëm sa bopp day waaw daal dinay songo attaqué discours yi nga xam ni kon nañu ko yëkkati nag ci wàllum xeet diw joolaa la séeréer la tukulóor la olof la ñeng ñeng ñeng patiti patata waaw Bougane Gueye Dany nee na te loolee nag mi ngi jugee ci ñooñu ak jegeñaale président Macky Sall Bougane Gueye Dany ne président Macky Sall ci boppam moo war a wax ak jegeñaale mi lee ci seen discours yooyu yooyu ay mbirum caaxaan la gars yi ñoo bëgg a divertir exclusive yéene ka ne candidature Ousmane waaw Sonko Madior Fall ma ngay téyeer machine 24 heures yéene kaa ne waaye gis nga nag buur buur la doomu buur buur la yooyee waaw dañu koo soxlaatul nag laa la wax al nitin na dëgg la gis nga politique bi ci boppam sax léegi amatul sens te Sénégal politique bi dem ay élection sàcc ko aj ay élection jël ay doomu aadama tëj leen ci kaso bi ndool gi fi ne loolee ci boppam kon moo war a laa la wax looloy dëgg de yéeni kaa gi ne waaye nag gis nga politiciens yi lée nekk ci nguur geeg opposition bi ah nañ xam ne danañu jàkkaarloo ak génération ay jeunes yoo xam ne la woon woon ni na de la woon woon ni na de ku la neexul nga éliminer doy na waar sur saane téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti yooyee ndax Karim dañ koo daan maître Moussa Sarr ne ah kay nguur gi mën naa nangu oto yooyee bu dee ci turu Karim la ne waaw maître Moussa Sarr ne waaye nag bu dee oto yooyee dañ koo def ci turu parti démocratique sénégalais day waaw nguur gi mënu koo nangu de parce que PDS ab association bu ñu nangu la ma yoro fay PDS nee na man de xaw ma oto yooyee kan moo ko moom mën nañoo nekk ci turu PDS wala ci turu Abdoulaye Wade wala ci turu Karim Wade Amadou Gueye na mënul nekk de ay baal Karim Wade ak ay Khalifa a yootu que moralement sax mënta ne lii mën nekk kay mooy ñu seen at bi wala présidence la république daal di dellu ginnaaw complètement mënuñoo jóg rek ne dañuy voté ab loi Karim Wade kese wala Khalifa Sall kese Amadou Gueye yemu ca ndaxte nee na xam nga Macky Sall daf doon ngand ngandaloo ak yëkkati ay mbagg ak yooyee final nit leen terroriser waaw waaye boo xoolee ba ci biir day Macky Sall fi mu nii dafa mel ni moo ragal rama Macky day ragalul taxawaay ci kanamu askan wi lée rama Macky yamu ca dee parce que naqarlu na ñi nga xam ne président Macky Sall kon da leen a ba pare dañuy daw deuxième waaw coowal Ousmane Sonko li lée dañoo seetlu ne président Macky Sall kon daawee toon lool xale yi ci boppam sax booy xool ñoom ñoo ko doon défendre rama Macky ne kon nag xale yi ci boppam war nañ leen a bàyyi xel critique yéene kaay ne 2024 waaw carte gi ne waxuma la sax diggante waaw waaye mbir maa ngay continuer ba léegi ne la lëgoom la waaye est-ce que feebar bi ab docteur du politique mën na koo faj ah te sax doon nañ yaakaar ne Idrissa Seck ak lañ ko fal ca conseil économique ah. dana tax nag ba ñi ko toogoog yooyee waaye ginnaaw ba dara gadaga mi nga xam ne ko tekki na ndooma dem day dee ca faala ngi ni lée di waaj a parti politique am laa la wax dee ca tam day dem day ñu ne déet ni waaye Abdou Aziz Mbodj responsable juridique ci élection yi ci parti réew moom it nee responsable yu bëree bëri nag tribune yéene kaay ne waaye yow mburoog soow bi moom mbaaru daa mujj safkaani moo ma jaaxal Eli Charles Moreau ci direct news nee na Sénégal gi la nekkul dëkk bu ñuy jaay te nekkul tam dëkk bu ñuy taal yéene kaay gi ne nañu caxa-caxatee nag brèche su ndargee jëlee chinois yi dee ngay takk seeni bagage daal waaw génnee na la fay mitti de ca ba Alioune Ndoye day moo lancé woon travaux ya 12 waaw 7 milliards la jar allahu akbar juróomi indi ay gindi leeral askan wi laa la wax te gis nga ba lu tolloo ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ci ay doomu aadama ñoo fa dee allahu akbar octobre 2003 ak léegi yéeni kaa gi ne kon nag mbir moomee dañ koo war a leeral nguur goo xam ni scandale rek <laughs> waaye scandale lu bël dee ak lu mu rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy du gën a rëy scandale pétrole bi déedéet moo tax suul gaz du tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji